messieurs dames très chers internautes de Alburakh Event TV ak B Pro Média mbokk yi nuyu nañ leen bu baax tey nag ñi ngi fi nga xam ne moom moo di euh, kër l'icône de la danse sénégalaise kooku moom mooy Fatou ware moom nag tey moom moo dégg alxayri du mu doon loo xam ne sénégalais yëpp bàyyi nañ seen ay yitte tey ñëw fi nga xam ne moo di Kër ma saar ngir euh, ànd ak moom ci feet bi ki ñu toogal nii nag moom mooy waajuram bu góor mais c'est un grand patriote parce que gis naa ko mu mu takk li nga xam ne moo di bracelet Ousmane Sonko papa nuyu naa la. Euh, waaw maa ngi lay fay. mais patriote nga de. waaw patriote laa moom. waaw patriote bu mag sax. kon de xanaa bëgg ngeen ne yéen a yor réew mi de. waaw waaw xam nga nag man euh, dama nekk nit koo xam ni musuma politique mais li ma dugal si affaire patriote yooyu c'est parce que. dama gis nit ku ñu tooñ dama gis nit ku ñu tooñ jaay ko doole bu méttee méttee méttee méttee di ko sosal di ko waxal loo xam ne ni dara nekku ci adduna bi yëpp dem ba xam ni kii liñ koy waxal dara du ci dëgg te man dama mës a contre injustice bugguma injustice mooy li ma gën a bañ sama àdduna loolu moo tax ma am amour ci ci ci Ousmane Sonko et son parti là Pastef adhéré wu ma fi sax mais mais patriote la si jikko looloo tax ma ànd ak moom mais musuma élection yi voté naa moom laa vote ñoom laa votel Diomaye la votel mais musuma à part moom Ablaye Wade laa musa sànnil benn yoon carte c'est en 2000 tey yi ñuy may sa doom Fatou Waré mu doon koo xam ne nekkatul ku ñuy présenté ci réew mi euh, à travers liggéeyam kat la mais aussi animatrice la ci télé ak rajo donc euh, tey ngay woy juróom wu góor euh, ba mu juddoo li nga doon xaar ci moom moom mooy tey jii bés bi maanaam ñu dem ba mayee ko mu sëyi tey bi nga mayee sa doom Fatou Waré yan témoignage nga njëkk a def ci moom waaw li may njëkk a def si moom mooy Fatou Waré fecc dafa nekk si deretam man au départ j' étais pas d' accord. pour d' accord woon. parce que showbiz bi li ci nekk dafa bëri ci ay inconvénients te man pap man papaam du ma xale quoi parce que boo demee ba am 64 ans dootoo xale. dox naa voyagé naa def naa jàng naa gis naa lu nekk showbiz bi xam naa nu mu demee mais d' accord ma woon mais bi ma demee nag bu ma di dem affaire di dem affaire di dem affaire di dem ma gis lim ci réaliser ci laa ko woo ma ñëw benn jour ma ne ko dama lay ñaanal pour lii nga nekk nii nga réussir si mu toog ma toog yaayam toog ma wax ko yaayam ñaanal ko nu ma ne ko demal depuis bo man bon te li ma si neex si moom mooy musuma ko dégg si lu ñàkk fayda am na fula am na fayda fonk na ay waajuram gis nga man duma ma jooy seen yaay parce que ñoom sumay doom ñoo tax dañ ma taxaw taxawaay boo xam ne nii mënuma la sax wax surtout moom waree dafa am yërmande si man lu ma bëgg loolu la bëgg lu ma bañ waxu si dara mun naa ni la man moom bu may Fatou Waré bi may bi may teggil dépense boobu dama nekk suma digg doole sax am doole am xaalis mun ma papa je en prie sama yaay lu mu la laaj dépense lu jëm ci dépense bu ko ko jox man maa la à partir d'aujourd'hui loolu ëpp na 15 ans mun ma à partir d'aujourd'hui maa la yoroon sa dépense su kër depuis lors moom mooy joxe mooy joxe dépense man mooy jënd ceeb sama kër mooy jënd dëwlin mooy fay courant et jusqu'à présent ci jigéen nekk showbiz loolu yombul te man mosuma ko dégg si benn scandale do doxuma parce que suma doom la bu fekkoon dafa mel ne noonu aussi dama koy wax. yaa ngi wax mais tu as tu as dafa mel ni. man li may wax nii suma xol la jógee moo tax dama koy ñaanal daal yàlla defal ko jàmm fu mu jëm rek mu am jàmm loolu moom man maa la ko wax te fu mu jëm dana am jàmm. dafa mel ni ngay waxee nii da ngaa wéet te damagul. ko waaw waaw c'est vrai mais nag xam naa ni moom nit la koo xam ni du ma mës a bàyyi. xam nga ñun doom jur rek lañ ci am xamoo ku ku muy jëriñ te jigéen surtout tôt ou tard day dem yow jur rek nga ci am yar préparé moom fu mu mën a dem léegi yow boo ko mayee rek sa responsabilité jeex na si moom jëkkëram mooy léppam yàlla na nag mu fekk kooku muy sëyal nekk nit ku baax ko moom ba mun ko bàyyi ba nga xam ne dina mën a toppatoo sëyam toppatoo ay waajuram loolu daal laa koy ñaanal di si ñaax jëkkëram man teguma ko dara jëkkëram. relation ak Boubacar jàlloo ñu bëri nee nañu woon moom moo koy maye parce que mooy papa moom da koy wax ci télé bi euh, euh, donc tey jii nii relation ak Boubacar Diallo. bon xam nga man Boubacar su ma la waxee dëgg benn yoon laa ko mës a gis mooy bi yaayam gaañu mu ñëw jaale si ma mais dama ko yàgg topp. jamono boobu mu ngi nekk euh, Walfadjri moom ak euh, son meilleur ami Jules Junior ñuy ñuy def benn émission bu ñuy wax ataaya ataaya Walfadjri ma leen di topp ñu nekk ay jeunes yu in yu intéressant Boubacar man dama dama dama doon njort toujours ni kii dina mos a réussir si li mu nekk parce que dafa il est social dama ko yàggat suivre aussi muy def ay lu baax ci jumaa yi ci jumaa yi du dem ci ay paa yu jumaa yu yu yu mu réfectionné defar indi ay tapis tëgg ay rajo affaire doomi loolu yëpp ma koy suivre avant Fatou Waré di ko xam bu bu ñu xamantee Fatou Waré man dama sant yàlla parce que dama xam ni dina ko dina ko dimbali et dina ko gën a ñaax ci àdduna ndax intelligence am moom bu Boubacar dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay parce que man gis naa lu mu def sama doom quoi bëgg na ko fonk na ko yërëm na ko Fatoore moo ma ko wax te man xaw ma ko ci fen quoi Fatoore sama doom la lu ma wax rek dama koy gëm parce que lu ma mus wax rek gis naa ko digganteem ak Boubacar relation bu ma neexee noonu. vraiment suma ko am waaye amul amul amul dama koy ñaanal moom Boubacar yàlla na ko yàlla defal jàmm lépp lu mu yóotu yàlla na ko jàpp ci daraja yonent bi. ndax dénk borom këru Fatou Fatou mi nga xam ne moom nga ko jox sa doom. waaw li ma koy dénk mooy man man su njaboot leen rek laa bëgg si ñoom ku ma yoral na ko yor xam ni jigéen la mu yërëm ko mais Fatou aussi dama koy dénk ni ko sa borom kër boo demee na ngay ay waawam. bu la jaarale si yoonu baax rek topp ko parce que loolu lañ fi am man dama ko ko xamal ni ko man sama responsabilité ci yow fii la yem sa jëkkër léegi mooy sa lépp man nag cëru waajur kenn du ko dindi delloo ma cër bi rek yaa sa jëkkër man bu ma leen gisee ak bu ma leen gis maa leen di ñaanal jàmm waaw yal na leen yàlla defal jàmm. su waree ku sañoon yaayam fekkee bës bi tey waaw mais fekkee wu ko. waa yaayam dafa mës bëgg loolu. ndaxte dafa dafa daan wax waree ni ko. bis bu la yàlla mayee bis yàlla mayee bés nga xam ni am nga yaay ju riche te dëgg la mais nag yàlla li ko neex lay def moom moo def ba tey fekke woo maa ngi koy ñaanal fu mu tëdd ci tuubaa yàlla na ko yàlla xare àjjana yi gën a kawe ci daraja yonent bi mais c'est c'est très difficile may may gis nit ñi moom sax pour mu gérer ko c'est tout un problème mais nag dimbali ma rek ngir yàlla ma yàlla ma fi wax ji parce que tu as compris voilà loolu la waaw fi mu ne nii ma wax quoi. daan nañ papa baal ñu yem ah, yàlla na yàlla fay leen jërëjëf jërëjëf.